bismillahi arrahmani irrahim wasala allahu ala seyidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim téere bi ci seen kanam mbokk yi di kayfa taxfadu alquran alkarim yi ko taalif mooy docteur Raghibou Serjani di ci jàngale naka la ñuy def ba wattu téere yàlla bu tedd bi di alquranul karim gannaaw bu defee mu xaddima bi ba noppi dana ci tudd ñaar fukki yëf fukki yëf yu njëkk yi mu tuddee leen alqawaacid al asaasiya li xewi alquraanil karim ponk yi nga xam ne yu fondamental lañ ci ku bëgg a wattu alquraan fukk ya ca topp mu tuddee leen alqawaacid al musaacida yoo xam ne ay fondam ay règle yoo xam ne yuy dimbale aji jàng la même su dee yegguñu ci solo yu njëkk yi am nañ solo lool fukki yi nga xam ne ñoom la njëkk a tudd yu ci njëkk mooy al ixlaasu lillahi tabaraka wa wal iktaaru min annawaaya alsaalixa wa yow mi jóg ne dangay jàng alquran pour mokkal ko rekk na sa yéene sell ñaal yàlla te nga baril yéene yu baax ndax jenn jëfkat mën nañ caa am yéene yu bari yu bokkut te dana ci dikk ñaareel ba mooy nga fas sa dogu dogu gu dëgër gu dëggu loolu nag li muy tekki mooy bul ne bu suba tàmbaleel tey yaak sa soxnaak sa waa kër dem am nga soxnaak njaboot woo leen amut tàmbalil yow kese wattandikul baatu saw sawfa ndax tey rek nga am kat suba dara ci wóorut ba muy idraku qiimati ma tanwi an tafaal li nga fas yéene dugg muy njàngum alquran est-ce xam nga valeur am fexeel ba xam ko danaa nañu wax dëgg-dëgg valeuru mokkal alquran ndax loo xamul na mu toll doo ko mën a fonk ñeenteel ba mooy al amalu bima naxfaru mooy lépp lu ñu mokal ñu fas yéene jëfe ko ndax jëfe li nga mokkal dana tax yàlla xamal la loo jàngut fexeel ba sa xam bu mu wute ak sa jëf ba mooy bu wëttu bàkkaar jéggalu yàlla li jiitu dogu ne dootuñ dellu ci bàkkaar la ga waxoon imam shafii shafii شافعي أنا شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي dama tawat wakiya sama ñaaw mokkal mu ne ma wattul mooy yàlla da xam-xam leer la te leeru yàlla du nekk ci dënn ku koy moy kon nag xam-xam bi jëriñ fok borom sàmm wante ak eh, ndigali yàlla yi te bàyyi yim tere su dul loolu lamu xam mën na ko alak te xam du ko yomb bàyyi bàkkaar juróomeel ba ñaan ñaan mën na lu ne foo toll ñaan nga xam ne sa effort yi bari bari du ne lay may yàlla rek moo lay may ñaanal yàlla tawfiixal la ba sa yéene sel ñaan ko mu nga mën a wattu wattu gu wér ñaan ko it ba jëf ji dëppook xam gi juróom-benneel bi nga sukkandiku nga dimbaniko boog listiaanatu bi kutubi tafsiri xata tafhama alquran alkarim dimbaniko téerey tafsiri ba looy jàng nga fexe xam maani ndax xam maanaa li ngay jàng dana tax mokkal ga yomb juróom ñetteel ba mooy xam-xam bile di jàngale nu ñuy tudde baat yi tudd gu wér mooy ilmu tajwid nga góorgóorlu ci fexe ba lettre bu nekk nga xam fa muy génne muy maxaarije waaye nga xam tamit sifaat yam am muy quality ndax lettre boo gis ci arab am na juróom ñaar ba juróomi melo letr boo gisit am na génnuwaay na lettre yoo xam ne ci put bi lañuy génne juróom benn am yu génne ci làmmiñ fukk ak juróom ñett lañ am yu génne ci tuñ ñeent lañ vingt-huit yi jeex lettre yi génne ci put mooy hamza ak ha ayin ak xaa royin ak xoo yi génnee ci tuñ mooy faa ak miim baa ak waaw yi ci des yëpp ci lamiñ la ñuy génne muy fukki juróom ñett yu des nga fexe ba xam melo yi tamit benn leetar amut lu ëpp juróom ñaari melo waaye benn lettre amut lu yées juróomi melo sifatul xuruf juróom-ñeenteel ba nga góorgóorlu ba lum néew néew weer wu ne nga fexe jàngal quran ba mu jeex lu bokkut ak sa wird bi ngay jàng bés bu ne sa dog bi nga war a jàng ci alquran danga ko jàng waaye en dehors de ça di nga góorgóorlu ba foo tollu di jàng alquran bu dee benn juz ngay jàng për bés mu nekk sa waq weer wu ne da nga jàng bam jeex su dee page ngay jàng saa jule wala sax ñeenti page saa yoo julle juróomi julli cinq fois quatre dafay nekk vingt page bu fekkee weer wi jours la di nga jeexal alquran ndax passé wul juróom benn téeméeri euh, page ak lëf bi nga fexe ba boy julli ngay tari li nga mokkal rawatina julli yi nga xam ne julli naafila lañ rawatina julli yi nga xam ne naafile guddi lañu boo mokkale benn saar wala benn page nan ko tari ci sa julli fukk yi la waxne ñooy règle yi nga xam ne mënuñoo ñàkk lixlaas muy sellal al azmu wala azima sadiqa muy dogu gu idraku ma tanwi an tafaala muy xam qiimaa li nga jublu al amalo bil mahfuz jëfe li nga mokkal tarku zunub wattu bakkaar addu'a ñaan yàlla may la lixlaas may la yéene gu sell may la wattu gu wër muy mokkal gu wér may la jëfe juróom ñaareel bi di dimbandikoo téere jàngal libaati firi ak li maanaa yu jublu juróom-ñetteel ba xam-xamu wiit nga jéem ko goreel te xereñe ko juróom-ñeenteel ba nga farlu ba weer wu lum tuuti tuuti nga wàccee ci kaamil fukkeel ba xiir lool ci jullee li nga mokkal rawatina ci julli naafile rawatina ci naafile yi yi ngay def guddi fukk yi nga xam ne nag wax na ne ñoo ca topp ci importance bu njëkk ba mooy nga tegu plan ne fii ak nangami at bëgg naa mokkal alquran moom nag wax na la ne nga jël lu mel ni fii ak juróomi at loolu sax bari na waaye pour nga baña a feel ñaareel ba mu ne nga takkee sa bopp ci ab groupe boo xam ne da ngeen di dimbalewante ci mokkal mi ñetteel bi foo toll nga ame kaamil bu ndaw wala bu tuuti ci xaj mi xawma bu ndaw ñeme nañ ko waxam déet nga xam ne foo amee euh, occasion rek mën a riir ñeenteel bi mu ne nga xiir ci topp ilimaan ji buy jul buy jàng ci jullik biral ngay déglu bu baax limuy wax ngay jéem a jàng ci suuf ànd ak moom juróomeel bi mu ne nga tàmbalee xaaj yi nga xam ne ñoo gën a yomb ni ki suuraat yu gàtt yi dégg nga kenn du wax suuraat yu ndaw yi waaye mën suuraat yu gàtt yi aswarul qasira kenn du wax aswarul sagira bi mu ne nga jéema jëfandikoo benn rasmu ci mushaf ni ki rasmu uthmani bul jël tey rasmu uthmani suba nga jël rasmu bu bokkut wala nga jël kaamil boo xam ne saudiya lañ ko moolee bu nga jël buñ moolee pakistan gannaaw suba buñ moolee afrique nga xam ne calligraphie bi dafay wuute donte kaamil bu benn benn calligraphie rek nga koy jëfandikoo juróom-ñaareel ba mu ne jël pour mokkal ko bu ko romb tànk xereñeewoo mokkal gi wala nga jëlaat beneen bind na bind bi mokk juróom-ñetteel bi na nga jël saar wi def ko unité par unité bala nga topp jëm ci beneen saar juróom-ñeenteel bi na nga fexe ba xam palaas yi nuroo nga marke leen ngir nga mën a bàyyi xel ba doo runge waaw góor ga waxoon araaytu alladi yukadibu bi diini fa dalika alladi yuwaswisu fi suduri nnaasi ñu ne ah limaan ji dee tuwaarkal yooyu nga bàyyi ci xel te boo demee ba ca biir ca faatu bi suuratin yëg daa gis yu mel noonu aha ak fashhad bi annana muslimuna ak bi anna muslimuna فاشهد واشهد آه. فإن تولوا فقولوا اشهد yooyu yëpp nga bàyyi ci xel ishtarik fi musabaqati xifdi alquran alkarim nee na it ngay bokk ci musabaqaat compétition yi am ci wàllu mokkal alquran dem da koy def ci seen jàkka ji wala ci seen koñ bi wala ngeen am sax groupe boo xam ne yéen koy defandoo wala ñu koy mën a def ñaar fukki yëf yi daal la tudd ne képp koo xam ne bëgg nga mokkal alquran na nekk sa yitte tey nag balaa ñoo yen ci bu njëkk bi en détail ñu romb ndànk xutba bi nga xam ne moom la dugge ki téere bi gannaaw bu mu sant yàlla julli ci yonent bi ñaan gu gi la ñaan mooy sama borom ñu ngi lay ñaan ci bépp tur boo tuddee sa bopp mbaa nga xamal ko kenn ci sa mbindeef bi mbaa nga wàccee ko ci sa téere bi mbaa nga jagoo ko ci sax xam kumpa yow ñu ngi lay ñaan nga def alquran muy lool lépp suñ di leeri suñ dënn yi di wuññuk suñ njàqare di deme suñ yitte yi ak yi ñu xëlëm mu teg ci nag ne xéwalu alquran mooy xewal gi gën a rëy ci xéwalu yàlla yim xéwalee jaamam yi ko gëm ba xam ne yàlla tabaraka wa taala jiital na xéwal gi bala mu tuddu bind gi bind doomu aadama niñ ko jàng ci suratu rahman te looloo ndax qur'an melo yàlla la linsaan bindeef la melo yàlla kooku du yemoog mbindeefam yàlla lu mbindeef ma réere waata mu ne arrahman allama alquran tuddagul sax kim ko xamal kiy linsaan waaye lim xamle ki alquran mu tudd ko ngir wan ne na mu ndax meloo ma borom téere bi nag mu ngi mel mu ne wa ka anna al insana alladi lam yuxlaq aslan wa ka annahu laysa fii xayaa mu ne boo xoolee yàlla uslub bi mu jëfandikoo dafa mel ni doomu aadama bi jàngul ko sax dundu newut ci mom loolu nag li koy firnde moy waxi yàlla jam wax nee na ci sóorat الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ay yéen ñi gëm yàlla wuyu leen yàlla ko bi yonantam suñ leen woowee ci lu leen di dundal su leen woowee ci lu leen di dundal mu mel ni doomu aadama bi nga xam ne du wuyu waxi yàlla du wuyu waxi yonantu sallallahu alayhi doomu aadama boobu néew la dundu néew ci moom mu teg ci nag ne yàlla jagleel na xéewal gile aw kuréel ci jaamam yi gëm mooy xéewalu mokkal bi ci seen xol te loolu bokk na ci li koy firnde li yonantu wax ne sallallahu alayhi wa sallam yàlla mooy yëgatee ci bile aw nit di ci sippee ñeneen moo tax képp koo xam ne mokkal na téere bi bokk ci ñi war a jiital ku sàgganee téere bi bokk ci ñi war a topp nee na nag ñaar fukki ponk yoo xam ne dana dimbale képp kuy jàng alxuraan pour mokkal ko ñoom la fas yéene def ci téere bi fukki yi qawaacid la fukki yi ci topp qawaacid musaacida la nim ko e, wara xala détaillé te ñu wax leen ko sànq ci mbambëstal mu ne nag mokkal alquran muhimma la boo xam ne bokk na ci yi gën a yittewoo ci lu jaam di yittewoo waaye li gën a rëy muhimma mooy jëfee ko alif laam mim alif laam mim saad kitaabun unzila ilayk fi sadrika xarajun minhu litundira bihi wa dikra lilmuminin mu ne buñ bëggee xam muhimma bi màggaayam nañ xool tuuti rek yoolu ki jàng alquran ni mu toll xadis joo xam ne tirmisi indi na ko abdullah ibnu mas'ud jëlee ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam mu ne ku jàng xaraf ci téereb yàlla bi dana ci am xasana mune ne bu nekk nag danañ ko ful bam nekk fukk mu ne waxuma ne alif laam mim xaraf la waaye alif xaraf la laam xaraf la mim xaraf la Tirmisi nee na xadis je xadis ju rafet la ju wér mu ne xel mu gàtt du mën a settantal mbaa imagine imagination ba war ci rëyaayu yool bi nga xam ne kuy jàngal Alquran dana ko am xel mu gàtt te xel mum lum réy na ci mën a xam yool bu rëy bi yàlla jagleel aji jàng alquran mu ne waa ki ko mokkal nag foofu nga koy xamee mu ne alquran mooy ñëw yowmal qiyaamati di défendre ay gaayam képp koo xam ne baaxoon na jàng alquran ndax gaay mooy koo xam ne mi ngi ànd toujours ku ànd koo xam ne nekkul ci say àndandoo duñ ko tuddee sa waay duñ ko kon asxaab muy saaxibul quran mooy wane ne koo xam ne fa baaxoo di jàngal quran mokkal ko di ko jëfe te woote jëmee ci nee na seetlul rek yowmal qiyaamati saar ci saar yi ñëw di la défendre yow aji jàng ji baqara ngi ni di la tinu ali ngi nii di la wutal yiwu yàlla ak aljannaam la ngi nii di la yaakaaral dan faala ngi nii di la mébétal waxi yàlla kii melo ci yàlla di la wutal intervention ci yàlla xam nga ne da nga am la nga fa bëgg de yonentu ne jàngaleen alxuraan ndax dana dikk yamal xiyaam di rammu ñeel ay àndandoo xadis jàng ci muslim abu umamat bahili nettali ko jëlee ci yonentu sallallahu alayhi wasallam mu ne muy baqara ak ali imran danañ ñëw yowmal xiyaamati mel ay niir yoo xam ne ñooy défendre seen worom seeni àndandoor yonentu nee na sallallahu alayhi wa sallam alquran nii lay jëflanteeg ay ay gaaya mu ne alquran mu wattu ko nag mujiza la ci mujiza yàlla yi ndax amul benn téere ci kaw suuf moo xam bu joge asamaan la wala téere bu nit bind la bu nit ñi di mokkale ni ñi mokkale alquran nga gis sax ñoo xam ne doo mën a imaginer nan lañuy ñuy mokkale alquran xale yu amul fukki at léeg-léeg du ñu am sax juróom-ñaari at di mokal alquran mokkal ga gën a xereñ mokkal ga gën a rafet nga fekk sax ñoo xam ne mënuñoo bind mënuñoo lire waaye dañ leen di sarek ñuy répété ba far mokkal nga gis sax koo xam ne bu ñàkk ñàkk na xéewal gu toll ni bët waaye yàlla woteel ko xéewalu alxuraan ci xolam mu dégg ko dégg gu xereñ donte mënta jàng waxuma la dégg ko déggu xereñ waaye page bu ne wax numéro ba ak aaya ya ca nekk gis ngeen ko lu dul jeex ci télévision yi nga gis sax ñoo xam ne duñ wax arabiyatu fas far mokkal alxuraan ba jeex takk te mënuñ caa firi benn bat waaye ñu ngi koy tarti ni mbàcce woon ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ko sax jàng lu bari ci doomi arab yi nga xam ne ci seen làmmiñ la alxuraan wàcc loolu li muy rek moo yàlla moo def mucjisa ba yombal mokkal téere bi wala qad yassarna alqur'ana li dhikr waaye moo def mucjisa it ba xeetal façon yi muy wattoo téere bi ndax moo ne moo ko wàcce moo koy wattu inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu la xaafidun te nag wasila gi gën a màgg ci wattu gi ñuy wattu téere yàlla bi mooy ñu mokkal ko ci xolu góor ñeeg jigéen ñeeg ndaw ñi ndax ay barab la yoo xam ne aji noonu lislaam ba aji bañ ko du ca yegg jamono dana dikk ñuy noonoo jullit yi di xeex lislaam di lakk téere alxuraan yi waaye yàlla wëttu alxuraan ndax des gim des ci dën yi xam ngeen ne yu mel nii xew na téere yiñ doon lakk Baghdad xew na sax lu yàggut lool jumhuriyaat islamiya jamono yi nga xam ne ittihaadu soviéti muy union yi dégg nga euh, colonisé na leen lakk téere di sax rey képp koo xam ne fekk nañ ab téere kaamil ci néegam mbaa ci liggéeyam ànd ak ñoom ña nga wëttu alxuraan ci seeni dënn di ko toxal from a chest to another ci yoonu sax ku nekk ci ñoom ci xufaasi di sañene ni ñuy jànga alxuraan ci barab yu nëbbu ci biiri xuur ak i eh, bés yi di romb ba lëndëmuk ruusi googu dem alxuraan moom des ci dënn jullit yi yàlla wax na dëgg nee na ay laay yu leer naññ la yu mu denc ci dënn ñi nga xam ne jox nañ leen xam-xam kenn du weddi suñu ay ndere tooñkat yi bal huwa ayatum bayyinatun fi suduri alladina utul ilm wama yajhadu bëgg naa nag feddali fii balaa ñoo jàll ne mokka alquran masuliya azima responsabilité bu rëy la koo xam ne yàlla defal na la tawfiq ba nga mokkal téere bu màgg bi mu ne xéewal gu rëy gi war naa tax yow fa nga war a sos beneen dund ndax yaa ngi yenu ci sa dënn alquranul karim mooy dootoo lu jiitu ngay mokkal alquran waxuma la lu ngay mokkal sax ma yokk ci loolu waaye ba nga suuboo ci mokkal alquran rek nga wara a judduwaat nag lu bari ci yow war a soppeeku ci sa biir ak ci sa ci li nëbbu ak ci lu feeñ ci say relation ak ci say jëflante ndax yow yaay doomu aadama bi yenu alquran fokk nga am noonu Abdullahi ibnu Mas'ud as-saxaabiyul jaliil nee na aji xenu alquran jaadu na ñu xam ko ci guddeem bu fekkee ne nit yaa ngi nelaw moom mu jóg bu bëccëgee bu nit ñi doge mu woor bu nit ñi bëggee di caaxaan moom ma nga jàq bu ñuy reetaan ak xaqtaay ma ngay bu ñuy xuus ci mpo ma noppi bu fekkee ne ña ngay war ak wuuri jëkka defi yëf moom ma nga ragal boromam tabaraka wa taala mu nekk yenu alquran ku nooy la wara a doon warta nekk kuy beccingal nit ñi ak di leen ñàkke teggin warta nekk koo xam fu nit di werante mu necc wakku warta nekk ku yuuxu ak di coow ci marché yi warta nekkit koo xam ne ku bari hayla eh, sayidna alfadayl ibn iyad taabici bu rëy boobu nee na ki yenu alquran moo yenu raayatul islam moo yenu drapeau l'islam warta fo ànd ak way foyi warta sàggan ànd ak way sàggani warta caaxaan ànd ak way caaxaan nee na ki yenu alxuraan war naa fexe ba du am soxla ci kenn ci xulafaaw yi ak ñi ci seen suuf mooy buur yi nga xam ne ñoom la yàlla jox kilifteefu àdduna ak képp ko xam ne yaa ngi ci seen rôle ci membre gouvernement mba ñu la mën a jegele kenn waru la fa gis koo xamee alxuraan dafa wara a liñu ñu seydna abdullah ibn mas'ud wax ak sax ak eh, taabi'i bu màgg bi moo ñuy wanne alquran mokkal ko tarbiya la waaye tarbiya gu màgg la tarbiya la ñeel doomu aadama bi waaye tarbiya la ñeel xeet wi tarbiya la ñeel xeet wi yëpp ku mokkal alquran bokkul ak ku ko mokkalut ku mokkal alquran bokkul ak ku ko mokkalut ku mokkal alquran bokkul ak ku ko mokkalut bu ko defee kooku responsabilité bu rëy a rëy la ne tarbiya jooju mu war a nekk ci ñimokal mokkal alquran nekk na ci ñoom ñu def ko ci xeet wi mu ne imaginel xeet woo xam ne jullit yu mel nii bari nañ ci mu ne xeet woo xamul sikk ne du dee mukk te mel na xeet wi nag bu deewutit feebar na nañu yàlla delloo doole xeet wi mu joxoon yonantu sallallahu alayhi wasallam kon nag képp koo xam ne yàlla yanuloo na la alxuraan amal na la jox na responsabilité boo xam ne way góor ak jigéen rek ñoom la koy jox def na ci ñoom amaana joo xam ne moo gën a cher gën màgg ci jaamu yi ñooñ lislaam di jaamu jullee ngi kii nga xam ne moo ko war a jiite mooy ki ëpp alxuraan dax ko koo jàng gën koo xam ak jàng nañ ci xadisu abu masud al ansari xadis yaa ngi ci saxih muslim yonentu sallallahu alayhi wasallam ne ki dàq jàng alquran ci nit ñi moo leen di jiite ci julli suñ yemee ci njàng ki ci gën a xam sunna suñ yemee ci sunna ki ci gën a yàgg gàddaay ki ci njëkk a gàddaay suñ gàddaayandoo ki ci njëkk a dugg ci lislaam dégg nga Xadija continuer wala yu umanna rajulu arrajulu fi sultaanihi wala yaqud fi beytihi ala takrimatihi illa bi izni waaye liñ soxla ci xadis ji mooy ba fa aqdamuhum silman am na ci riwaaya yu ñëw fa aqdamuhum sinnan mooy bu fekkee ne ñoo ci jàngal Alxuraan mbooloom ñoom ñoo gàddaaye ndoor ñu seet ka ca gën ka ca ci benn ci riwaayaat kon képp koo xam ne yàlla def na ci yow lislaam def ci yow alquran ñëpp a baax de ci ñooñ lislaam waaye lim la jox ci responsabilité defu ko ci joxu ko kon yàlla jiital na xufaadul quraan yi ci qadaaya yu mel nii ak qadaaya lifta ak shura muy ubbe ak ak jël xalaat ndax koo xam ne yàlla leeraleel na xolam alquran dëgg-dëgg moo gën a mën a xàmmee dëgg ci nen moo gën a mën a xàmmee sawaab ci njumte moo tax abdullahi abbas ci hadisu buxaari mu ne qurra yi jàngkatu alquran yi ñoo doon toogandaw Seydina Omar ñoo doon diisoog moom it ay mag lañu wala ay xale lañu ko koo xam ne toll na ci âge kahl ak koo xam ne chab la moo ci yem maanaam Omar bu nit xasee yéen waa alquran dootul xolati âge lum ndaw ndaw dana ko taf ci boppam di ko déglu ñi yenu alxuraan boo xoolee ci jihaad ñoo gënoon a mën a dëgër gën a sax gën a ñeme nga gis ne sax waxuma la gën a sax gën a ñeme waaye ci seeni jogare lañ daan teg euh, responsabilité yi ci seen ginnaaw la armée bi yëpp di dox seetal mawqi'ul Yamama qira'atul Yamama bi nga xam ne ci lañu faagaagalee ahlu ridda wa ala rasihim musaylamatul kadab bañ demee ba yëg ne ña ngay feebul rek lañu lañu woote yaa ahlal quraan ana waa yéen waa alquraan yi ñoom ñëpp jokk julit yëpp ci ñoom keroog juróomi téeméeri xaafizul quraan faatu nañ ca ba ñu wooye ñooñu ñëpp jog gannaaw ga ñu woo ana ñu mokkal baqara ba ku nekk ci ñoom topp ci nga gis ñi mokkal alxuraan niñ leen jiitale soog caa teg ñu mokkal yenn ci ay saa yooyu yëpp jaam bi war ko bàyyi xel bu ne yàlla def na ci moom alxuraan moo xam ne it masuliya bi moo koy xaar moom mi nga xam ne mooy dugg si ci toolab mokkal alxuraan ci toolab mokkal alxuraan kon bépp taklif islaam yi moo xam jihaad la moo xam daawa la moo xam imaara la moo xam wax dëgg la yépp ay responsabilité yu mag la waaye bii nag dara jiituwu ko ci moo tax jaam bi bu wax ne ah comme responsabilité bi rëy na ni kon xaaral ma reculer responsabilité mooy xewalu yàlla ndax jaam bi lépp loo xam ne mi ngi koy jëf ci àdduna responsabilité la te yool mi ngi toll ni dayoo coono ba ki nga xam ne sonn na di fokk guddi ngir jot kawe ak mbaax du bokk ki tayal te tooy yokkat du def dara te ne yéene yi baax même su fekkee ne résultat yegguloo ca sa yéene bu baaxee rek yàlla yéena lay fay innamal amalu binniyaati yàlla it xam na liñ yéene xam na it liñ mën laa yukallifu llahu nafsan illaa wusaha te moo ñuy regle ñu ngi ñaan mu rafetal suñu yéene may ñu kattan te taxawuñu dimbale ñu boole ci ñi nga xam ne dafa leen di jëfandikoo ngir diineem taxaw fii mi fi tudd makaana bu xaafizul quran am ci lislaam makaana bu rëy rëy rëy la yàlla defal képp koo xam ne yanu na alquran ji seetal seydna omar a xadis jàng ci muslim dafa jublu makka taseeg naafi ibn abdul xaaris ci Usfaan Omar ne ko fekk moom la Omar eh, jiitaloon mu gouverner Makka mu ne ko koo fa bàyyi ko bàyyi ca xur ñooñ xur wi mu ne ko Ibn kuy kooku mu ne la ci suñ mbaa yàlla yi mu yàlla nga fa bàyyi mu ne ko ah jàngkatu téereb yàlla bi te ko xamoon te ko xam xam-xami miraas mu ne ko ah seen yonentu na sallallahu alayhi wa inna allaha yarfau bi hada alkitaabi aqwaman wa yadaau bihi aaxarin yàlla dana yëgatee ci alquran jile aw nit sippi ci ñeneen ba muy laajte loolu ndax booba Quraysh niñ mel foogut ne koo xam ne mawlaa la dinañ la déglu te booy jiital kenn ci nit ñi da nga jiital koo xam nit ñi wek nañ ko te bokk na ci liñ daan wagee nit askan pour ñu déglu ko waaye alquran ji nekk ci moom ak xam-xam bi ne ci moom tax na bañ ko ko tuddee moo xam ne ah ku yore lii nit ñi dootuñ xoolati leneen ndax alquran moo kawe lépp alquran moo moo féete lépp kaw xadisu buxaari jëlee ci jaabir ibn abdullah yonentu sallallahu alayhi wa ci ñi nga xam ne ñoo faatu ca Uhud da daan laajte buñ boole ñaar nit war ci benn bàmmeel kan ci ñoom moo ëppoon li mu mokkal ci alquran suñ ne ko kii la nañ ko jiital ci laxdu bi loolu yëpp ngir wane ngëneelu alquran abu daawuda xadis jim jëlee ci abu musa al ashari te nawawi ne xadis xadis yu rafet la nee na yonente sallallahu alayhi wax na ne bokk na ci màggal yàlla teral borom be jaaw ab woo xam ne ab jullit la teral koo xam ne ku xenu alquran la waaye xayril xaali fiihi wal jaafi an dégg nga ëppalut te du beccangal waaw ah. xeyril xaalifi wal jaafi an ëppalut ca te du beccangal jàppul ne moom moo gën nit ñi ba di leen ñàkkee kersa mbaa di leen ñàkkee respect bi ak teral buur boo xam ne bu màndu la buur bu màndu ramu teranga duñ ko gis mu tudd ci ñett ñi nga xam ne màggal leen teral leen màggal yàlla la al borom alquran léegi nag mi ngi bëgg a dugg ci li ko tax a jóg muy qawaidu xifdil quran mu ne yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wax nañu luy tax ñu xam ne mokkal alquran du loo xam ne lu simple la ba ku nekk rek mën na koo def te doo sàmmanteeg charte yi dafa soxla waxtu soxla effort ndax yonantoo ngi nii ne nemmeeku leen alquran waat naa ci buur bi nga xam ne sama bakkanang ci loxom alquran a gën a gaaw a bocceeku dégg nga ba dem yoonam gëlëm goo xam ne dañ ko ci buumam gëlëw soo ko yeewee te doo ko nemmeeku muy fëttandiku di fëttandiku di fëttandiku da ngay toog rek fekk buum ko rëcceeku na ba dem waaye soo koy nag gunge yoo xamee nga mu dëgër gëlëm nga du mosa dem alxuraan yi noonu la soo ko mokkalee te doo ko nemmeeku di ko jàng di ko nafar dafay dem soo koy nafar nag ak di ko jàng tout tout temps loo mokkal du dem waaye nag mu ne nañ xam ne bépp muhimma lum jafe-jafe su ko yàlla yombale rek mu yombal mu yomb kon nag nañ ko jox yàlla yàlla nee na ku ma jox sa bopp ma doy la wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu yonentu wax na ci xadis joo xam ne mi ngi ci Tirmidi Abbas jëlee ko ci moom ne booy laaj na nga laaj yàlla sooy wut ndimbal na nga sàkku ndimbal ci yàlla Tirmidi nee na xadis ju xadis ju rafet la bu yàgg waxoon nañ yoon woo xam ne toll na ci yu thousand mile lu mu guddi guddi doo ca dem mukk lu dul li njëkk te li njëkk mooy seq jeego waaw thousand mile benn jeego lay tàmbale maanaam boo xasee seq jeego rek yow moom yaa ngi ci yoon boo arrêté wul da ngay loolu yàlla ga mu ne xàmmeewu ma ak ne ci ndax ku ne ci bu arrêté wut dana yàgg moom tamit mu wax ñu nag ne dajale ne fii ci biir téere bi ñaar fukki xawaayit lan leen ko jiitalale xawaayit yu jëkk ya yu mënta ñàkk la ya ca topp nga mm, bu fekkee ne tolluwuñ ni yële seenu am solo ah, dégg nga ëpp na xàpp bi ci njëkk nag te ci lañuy yem xëy na tey muy qaayida al ixlaas dégg nga sincérité sa diggante sa bol sellal ñeel yàlla mu ne mooy bi ëpp solo ci sujet bi ñuy waxtaane mu ne ndax doomu aadama su jëfee jëf te namut ca jëmmi yàlla ja jëf ja dafay yàqu ndax yàlla wax yonantu sallallahu alayhi wasallam ci alquran wax yu nañ jëm ci yow ak ci yonantu yu la jiite woon yu la jiitu woon ne soo bokkaale sa jëf yépp dana bippeeku te danga bokk ci woy perte yi yonantu ndeke moom lañuy wax loolu mooy ilimaanu ñooñ tawxid te tële na walis bàkkaar sàkka bàkkaaru bokkaale buñ koy wax loolu ñun la ñuy wax kon nag yow miy jàngal xoraan fexeel ba sa yéene bum nekk wut ca daraja ba nit ñi fonk la ba yëkkati ci kaw ci kaw nit ba ñu jiital la ngay ilimaan ci julli wala ñu lay joxe naan xaari jàngkat boo ki dàq jàng ngi fi wala ñu la cay jox alal wala benn poñaxit ci poñaxiti àdduna yi ndax yonentu ci xadis ju wér ji abu daawuda solo jëloo ci abu hurayra wax na ne képp koo xam ne mi ngi sàkku xam-xam boo xam ne dees caa war a sàkku jëmu yàlla ji waaye moom sàkku wut ko ludul mu wut ca poñaxit ci poñaxitu àdduna lu lu mu wut ca dégg nga euh, gaar-gaar ci gaar-gaar yi àdduna mu ne kooku de du am du mos du xencu xetu aljanna bu yawmal qiyaamati aljanna dana du wax na ci hadis ne nangami nangami nangami nangami euh, miles yoo xam ne kenn xamul soriwaay ba bu la ko sorixee ngay xeeñ neexaay ba mu ne ki nga xam ne nag dafay wut xam-xam boo xam ne yàlla lañ ca war a wut mu koy wut ngir baña xeetu àdduna moom xajana du ko xeeñ ci yàlla boole muslim imaam muslim moog nasaayi ak ahmadu ne yàlla yërëm leen ñoom ñëpp solo nañ xadis joo xam ne sidna abu hurayra moo ko jëlee ci Euh, dégg nga ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam dégg nga sayyidina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne ñett ñi nga xam ne euh, ñoom la yàlla di njëkk ate yowmal qiyaamati ñett ñi la waaye joo xam ne dañ ko rey ci xare mu dikk biñ ko indee yàlla xamal ko xéewalam mu xam ko moom it mu ne ko loo def ci xéewal gi ma la maanaam lu mel ni kàttan gi ma la joxoon mu ne ko xeex naa ci ba shahid yàlla ne ko déedéet fen nga de waaye da nga doon xeex ngir ñu ne jàmbaar nga te wax nañ ko yàlla joxe ndigal ñu diri ko ci kanam moom yóbbu safara ñaareel ba waajoo xam ne jàng na xam-xam di ko jàngale jàng alquran ñu indi ko yowmal qiyaamati yàlla xamal ko xéewal gim ko xéewal ci biir jaamam bi mu xam ko moomis loo ci def mu ne ko wut naa xam-xam xamale ko jànga alxuraan ngir sa jëmm mu ko fen nga de danga doon jàng xam-xam ngir ñu ne aalim nga jànga alxuraan ngir ñu ne qaari nga waxoon nañ ko ñu daal di joxe ndigal ñu diri ko ci kanam ba sànni ko sabara ñetteel ba waajoo xam ne yàlla daf ko yaatalal jox ko ci xeeti alal léppam ñu indi ko yàlla xamloo ko xewala mu xam ko loo def ci xewal gi ma la joxoon maanaa alal mu ne ko bàyyiwuma wenn yoon wow bëgg nga ñu dépensé ci alal lu dul dépensé naa ci tanga tax yàlla ne ko fen nga waaye danga doon joxe ngir ñu ne diwa tabe waxoon nañ ko ñu joxe ndigal diri ko ci kanam moom dégg nga ba sànni ko safara nañ ci àlla boole musul xam nga ñu ngi xalaat ñun ne ki dem safara mooy raykatu nit njaalo yaa naankatu sàngara waaye yàlla bëgg ñoo xamal danger lii ak danger bu wut ngërëmal nit ñi ci loo xam ne ngërëmal yàlla lañ ci war a wut bu ko defee ñi nga xam ne ñoom la joxoon téeram bi jox leen alal jox leen xam ñu cay def jëf yoo xam ne yépp yu baax la ci zahir waaye xol ba nammu leneen lu dul yàlla ñooñ lay njëkkaate moo tax mbokk yi suñu lépp nañ ci jiital yàlla yéen ñi mënuñ dara nit ñi mënuñ tus kenn mënut leen a gërëm te boo leen mënoon a gërëm loo it jarul ngërëm jaruñ jëndee wax na ne xadis yaa ngi ci xaakim te nee na xadis wér la abu said al xudri boo ko jëlee ci yonentu mu ne sallallahu alayhi wa te ñaan ci yàlla aljanna balaa ko aw nit di jàng di ci ñaan xadduna mu ñi koy jàng ñett lañ waaye yoo xam ne daf cey puugaréew ak waaye ju cey wutee lum lekk ak waaye ju koy jàng ngir yàlla saa yu sa lixlaas dolle ko sa yool ca yàlla dolle ko ni ki mu ñëwee yoo xam ne mi ngi ci buxaari ak muslim seydna omar soloo ko yonent yonentu sallallahu alayhi wa te mu ne xadis la joo xam ne ju boole la ju matale ci mbirom dixlaas Omar nee na dégg naa yonentu sallallahu alayhi wasallam mu ne jëf yi ñu leen di jàppee yéene jëf yi ñu ngi leen di fayee seen yéene jëf yi ñu ngi aju ci yéene nit ku nekk ñeel na ko lam képp koo xam ne gàddaayam jëm na ci àdduna ju jot wala jigéen ju muy takk gàddaayam jëm na ca lam gàddaay jëm ca saa yu yéene yu baax yi bare yool gën a màgg gën a bari waaye mën naa def ci benn jëf joo xam ne benn la yéene yu bari yu baax fii ci maqaamu xifdil quranil karim am nga possibilité sa yéene yi baax yi ci misaal bi ngay jàng alquran mën nga yéene jàng bi ngay mokkal alquran yéene ji mooy bari looy jàng alquran ndax ki mokkal alquran mën naa jàng alquran ci melo yu ëpp yi ko keneen di jàng maana su fekkee ne yaa ngi mokkal alxuraan di dox ci yoon wi wala ngay dawal oto mbaa nga nekk ci yenn euh, transport public yoo xam ne dafa xat ba mënoo génnee sa kaamil wala nga nekk ci barab boo xam ne amuloo fa lu mel ni nga nekk ci ab clinique wala ci ab office wala nga nekk ci tukki wala ci barab bu mënta nekk yow bu fekkee ne mokkal nga am nga possibilité jàng alquran soxla woo dégg nga kamil su fekkoon ne mokkaloo nag boobaa ay possibilité ak say dégg nga mën-mën dafay limité wu say opportunité dafay limité kon bi ngay mokkal alxuraan yéene ci occasion boo am pour jàng nga def ko te yàlla tax te nëbbuwul ne xaraf woo jàng ci alxuraan fukki xasanaat lay tolloo lum tuuti tuuti so yool bobu boo ko xoolee yool la boo xam ne rëy na ba kenn mënu ko imagine ñaareel bi yow mi jàng alxuraan pour mokkal ko na sa nekk ci di naafila guddi li nga mokkal niyetu qiyaami leyli bi xam nga doomu aadama su fekkee benn saar rek la mokkal wala li mokkal ci saar bariwut guddi gu nekk mu koy muy jullee yi mokkal mën naa am bu yàggee mu yokkat waaye su mokkale alxuraan yépp ba set mu jàng saar wu bokkul ak doon jàng démb di bànneexu ci téere yàlla ñetteel bi yéene ji yéene am teraangaay bokk ci ñi yeno alquran ndax boo yenoo alquran yëpp alquran yëpp moo lay défendre bu yowmal qiyaama ki yenu saar saar woowu dina ko défendre ki yenu ñaar ñaari saar dina ko défendre waaye boo yenoo alquran yëpp mokkal yëpp alquran yëpp moo lay yenu hadaf boobu nag dina hadaf bu rëy la boo xam ne jar na bakkan yi ruux yi jar na jëmm yi yaram yi ñu yulli leen ngir xam ko lañu ko yàlla boole may ba nga yéene ci mokkal ngay mokkal alquran teraangaay solol sa ñaari wayjur bu yowmal xiyaame taaju dégg nga buur ta kuroon ñoo solol buur yi yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama wax na ne ki mokkal alquran bu yomal xiyaame yàlla dafay solal ay waajuram taaj dégg nga taaj yi leer wallu lu ngeen xalaat nag ci ki ko mokkal moom digam ñaari waajuram mokkal gim ko mokkal ci lañ lay solale taaj boo xam ne leeram moo gën a leer jant bi ni muy ci suñ kër yi ci àdduna hadis ji même su fekkee am na duuf ci lisnaadam kenn weerantewut ne fayu bàyyi dégg nga ñi nga xam ne fayu bàyyi ñi nga xam ne dañoo mokkal seen fay la wu rëy rëy tax baay bu nekk war na fàttaliku loolu ngir dugal doomam mu jàng alxuraan ndax seen njàng foofee lay gën a yombe taalimu fi sigari ka naqshi fi lxajari dégg nga jàng ci ndaw mu ngi mel ni nga tooyal nga mool mool bu tooy xepp nga rëdd ca bu woowee rek dootul dëñ waaye mag tamit na ko jàng waaye efooru baaxee ay woy jur yoolu baaxee ay woy jur na nekk ci kanamam ngir mu mën a mokkal te scientifique yi sax wane nañ ni mag du tere mën a mokkal am na kilifa gu nekk ci madinatul munawara nettali waa joo xam ne dem na ba romb juróom fukki at wala sax juróom benn fukki at su ma mosta jàng bind mosta jàng liir jógee ca Shaam rek dem Madina ne mokkal alxuraan la bëgg bala moom am juróom-ñaar fukki at mokkal na jullit rek yàlla defaral ko lim bëgg yëpp juróomeel ba ci yéene yi mooy yéene protéger sa bopp ci mbugalum àllaaxira yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yim ci wax xam ngeen ko waye abu umaam albahili mi nga xam albahili mi nga xam ne wax na ci xadis ju wér joo xam ne ci daari mi ne iqra'ul qur'an iqra'ul qur'an jàngaleen alquran abu umaama mooy wax mu ne wala yaxurrannakum hadihi almasaaxifu almuallaqatu kaamil yi ñu aj nii rek bu mu leen war ba tax ngeen ne ah kaamil yi ak bu saa yi mu bëgg a jàng-jàng amuloo ndax kaamil yi dana fay joge fi di niñ ko gisee ci ay jamono ci yenn barab yi ñu tudd sànq mu fe الله يلا la yu'adhibu du mbugal qalban xol ba xam ne waa alqur'ana mokkal na alqur'an xol bu def alqur'an yàlla du ko mbugal ana yàlla feesal suñu xol yàgg alqur'an dégg nga juróom-benneel bi mooy yéene ji na nekk nga jàngal ko keneen bi ngay jàng na nga yéene jàngale ko ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax ne ki gën ci yéen ki jàng alxuraan ba pare di ko jàngale ki am alxuraan di ki xam alxuraan xamle ko kooko gën ci li yàlla bind xadis ci Seydina Usmaan ibn Affaan juróom ba na sa yéene nga eh, an takuna qudwatan xasanatan lil muslimina wa li muslimin nga nga nekk royukaay wu rafet ñeel way ak ñu dul jullit dégg nga docteur bi topp diineem te mokkal alxuraan ingénieur bi mokkal alxuraan baykat bi mokkal alxuraan menuisier bi mokkal alxuraan waaw maanaam ñoo ñëpp docteur bu topp diineem ingénieur bu topp diineem dégg nga baykat bu topp diineem na jaar muy menuisier bu topp diineem suñ ca boolee mokkal alquran loolu seen xef seen xefdu boobu daf leen di eh, jural kaweegu gën a mag mu ne waaye bu ñu boolee seen xef ak seen iltizam boobu buñ ca boolee tafa wok boobu nga xam ne kawe nañ ko ci seen métier dafay tax seen daawa gën a yomb ndax nit ku kawe ci métier rek dañ lay déglu kooku nag su baaxee topp lu wax ba pare xam alquran mën koo jotal kooku dafay tax e, daawa bi gën a yomb ndax am na wok ci mihnaam am ca ak mahaara am ca xam-xam gu wér ci e, jànkuwante gi mu koy jànkuwante waaye mu boole ca lislaam nag ak topp lislaam ak xebru alquranil karim kii daawaam bi muy woote ak eh, nekk gim nekk xudwa mooy daawa bi gën a rëy ndax nit ñi du li nga leen wax ñaareel la ñuy déglu waaye ni melit su fekkee nag mel nga baax ba pare mbaax ga rek mën naa woote woote leen jëm ci lislaam fekk yéen a ngi nopp la góor ga waxoon ñu ne ko ci naka mu ne ci seeni jikko su borom jikko nag woote ci jikkoom ba pare woote ci waxam kooku dafay dëgg-dëgg dégg nga barkeel wooteem wooteem it dafay jëriñ mu ne yii nag lenn la ci yéene yu baax yi nga xam ne ki nekk ci processu mokkal alquran war na ko dégg nga def ci boppam bu ko defee nga xam ne am na yeneen yoo xam ne yéene yu baax la yuñ tuddul fii waaye yi ñu tudd nag ci eh, misaal la juróom-ñaar bi ci mujj mooy nga yéene ci nekk royukaay bu baax ñeel jullit yi ak ñirul jullit yi juróom ba mooy nga jàng ko yéene jàngale ko ngir xadis yiñ wax juróomeel ba nga yéene ci mucc ci mbugalam àlaxiram la alquran fay tinu boromam ba nga yéene ci terangaay sa wayjur góor ak jigéen yàlla solal leen taaju leer yowmal qiyaamati ngir mokkal nga mokkal alquran ñetteel ba nga am yéeney am sharaf bokk ci ñi yanu téereb yàlla bi di alquran ndax ku yanu alquran yanu ci sa diggante e, dégg nga e, wet yi doonte yonantu dootu ñëw gannaaw yonantu sallallahu alayhi wa sallam waaye al ulama warasatul anbiyaa li nga ñaareel bi di nga yéene li nga mokkal nga di ci taxaw guddi ndax xam ngeen taxaw guddi num toll te mokkal dana tax borom sawar ndax ba set mu jàng lu bokkut tak lam jàngoon démb dégg nga ku ci njëkk ci yéene yu limu yi mooy nga yéene jàng alquran ju bari boo mokkalee alquran ngir occasion yi nga xam ne dinga ko am en tant que ku mokkal euh, ki ki du am yooyu danga mok danga bëgg a jàng alquran waaye yaa ngi ci yoon yaa ngi dawal wala amuloo kaamil su fekkee ne mokkal nga nag dawalal eh, nekkal ci yoon na euh, barab bi xat na nga ñàkk kaamil am nga alquran ci sa bopp kon nag yi moo ëmb ponk bu njëkk bi nga xam ne moom la de ponk lixlaas te moo gën a am solo ci ponk yi ci mbirum jàng alquran waaye ci mbirum bépp jamu boo xam ne jaam bi bëgg na ko def wa ma umiru illa li yacbudu llaha muxlisina na ddin xunafaa ibnu ataa ilaahi mu ne ni nga xamee borom du nangu jëf juñ ko boole kenn du jublu xol buñ ko boole ak keneen ala waaxiru dacwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu